Betul. Bahasa saya waaw Wow, dia sih nak tax mu métti li tax mu métti ci yoruñu ni reu mila. ci yoruñu réew mi la ñun ay ni dah Kalau orang tak tanya dia léegi maam yi daal lu ñu bëgg lu ñu bëgg maam. mu soppeeku maam jox ko jox ko benn léegi léegi c'est très simple dañuy waxtaan su ngeen bëggee mu soppeeku ñun doomu département bi la ñun doomu jéegi néew li ndax ñun ay doom la dañoo am yaay ci kër ga. am baay ci kër ga am maam ci kër ga te maam bu soxlaa ñun ñooy dem daan suñu doole ci suñu poos di jox maam n'est-ce léegi nag doom yooyu de dañoo bëgg a xet yëfee ca kaw pour dund bu mu cher rek pour pour pour électricité bu maanaam bu ñu teg dara dara dara dara ci ndoddu askan bi loolu nag pour mu yomb pour mu yomb da ngeen di jël dix borom ba trente ngeen jël ko ngeen dem ko ngeen dugal te di ngeen am chance su ngeen defee bii fii ci département bi ñetti député dinañ ci jéem jàppale bi mooy waxal leen. waaw incha allah. da ngeen bàyyi xel bi de. Diallo maa ngay laaj kañ dem rek. wallaay Lamine Faye jox na Lamine Faye keroog mu ne woon jox na sama numéro sax. effectivement daa koy jërëjëf waay dama seen oto yi xàmmee ko ma ne ni nga ma ñëw. man moom li ma la waxoon keroog rek. li ma la waxoon. mooy Imaamu Saxé li ma la waxoon keroog rek laa lay waxoon. dañoo daje woon ci Daara moderne bi ci biñ la tuddee Daara. Alaaj Tamba Alaaj Tamba effectivement. waaw waaw kay. ñoo ngi si liggéey bi ngeen dolli ñaan rek. wecce laa jot non amul problème loo bëgg rek noonu la ñuy def maa ko loo bëgg rek noonu la ñuy def kat daal la ñuy mooy yeewi wàllu li ma leen mani ana candidat bi du yow la yow yaay candidat bi waxal ak man li ma leer. dina naa la sëñ Bamba yaay gañ. ak ak sa alhamdulilah jërëjëf. ma ne la départemental bi xanaa kenn du ñàkk jëm. Ah. di taxaw di woteel keneen ku may yow ci ànd ak ak yow. ku la wax nga ne ko docteur Mamadou Faye ñu wax ko Daba. Mm. yaay gañe. cent pour cent waaw yaay gañe. te daal da nga xam ne ah. dara mm, daal liggéey sant nañu baax a baax. waaw yaay gañe. yaay gañe. yaay wàllu moom mooy liste bi ngeen waate ko incha allah jërë ngeen jëf. mooy mu nga xam ne moom lañ bokk mooy département Guinguinéo dafa am ñetti candidat kii moom mooy candidat bi ci département bi man candidat laa Modou Gueye Diondéne Mbos génn Mbos waaw moom mooy suñu gaal man Ismaïla Diallo fii gee ngi new ak ma Roqaya Daba Diouf fii gee ngi new ñun ñett ñoo ànd maire Daba man ak Mod Diop génn bu mbos ñoo ànd lëkkaloo pour que geen bàyyi xob xel bi euh, xob bi xel. bu leen ñu voté ñun bu ngeen ñu voté da benn rek lañ a am. te ki ngeen ko defoon muy Mandiaye bi defulu département te Mandiaye ba ngeen ko joxee ba ana lu mu def ak lu mu wax. ak gis ngeen ko fi dem ngeen seen doom ñoo jariñ. suñu assemblée du département bi dana ko dana ko wax. ndax dina am yeneen ñaar ñoo xam dañ ko bàyyi xel pour mu ñu waxal n'est-ce pas danañ ko fa wax ko rabbi waaw mu ngi ci biir mu ngi ci biir mu ngi ci biir mu ngi ci oto bi loof rek daba nga nekk ci loof rek Ismaïla Ismaïla Ismaïla na nga man liste national laa national nga nekk waaw mais ñun ñoo lëkkaloo leen intercoalition la xam nga bu ngeen demee ba bokk góom da ngeen di ànd fajandoo góom bi léegi ñun góom bi ñu bokk mooy Macky Sall moo ñu lottal Macky ne moom ñaari mandat lay def mu bàyyi fa loolu ne moom dafay def ñetti mandat bugg ñu ko forcer. te ñun xam nga Sénégal. Mhm. bokkuñ ak yeneen i réew yi. yàlla dafa dogal ñun lépp ci jàmm lañ koy dox. bëgg jàmm tey moo tax ñu boole suñu doole fii ci département bi. boole suñu doolee mooy. Pastef ñëw. PUR ñëw. PDS ñëw. ak yeneen ñoo xam ne ay mouvement lañ defee ñoo boole def benn say. say googu le nag ñett député mën na cee génn. man mii mën ñett mën na cee génn. man mën naa cee génn seen doom seen rak lan nga ci génn maire Mbos bee Modou Guène Diop mën na cee génn ah, aji roqaya aji roqaya da bu Diouf tam mën na cee génn xam nga ñett fu ñu taxaw song ab ministère pour voter budget ah danañ ci bàyyi xel gee ngi new bu baax a baax ñu xam la léegi nag dañoo bugg ngeen bàyyi xel lii bu baax yow daal li ñu mën a wax mbay mi teew waaw la jàppale bu woon dara yow ni ñu la xamee danañu la jàppale te kii xam na ma bu baax a baax a baax xëy na nag yéen a ngi ñuy romb xëy na kii leen waaye yow dañoo bokkoon dëkk bi man coalition yi ba mu amee dama juf li passé di yéen laa wateel te danaa la jàppale danaa wut ñu bare bare ñoo xam ne ñu ngi leen di dajale su wate ba jote bu sooba yàlla ñun ak ñoom sarlog ñun ñëpp ñu ngi bëgg a def benn dank boo xam ne su wate ba jote yéen la ñu jàppale joxu leen ma dara duñu kii waaye kii dama koo xam waaw li ñuy bañ am li ngeen bëgg waaw yàlla na ngeen am li ngeen bëgg. waaw danaa dana bañ naa ci am. daa bari ñu fi ñun. maa ngi naan li ñuy joxe la waaw waaw. mu may ma tuuti rek. Hmm. xam nga ñun. Hmm. dangeen ngeen ñëw tette ñu dem jàngi. seen ñaar dërëm seen dërëm ah jëndal lii bi ah waaye yàlla yàlla dimbale si njàng mi n'est-ce looloo amoon xam nga lool yëpp bu amee ñu wëlbatiku ne ñëwaat ne ñun dañoo bëgg a jàpp kon war ngeen ne gëm ne ñu leen mës a seetaan buñ demee. waaw kon taxawaay boobu lañ am mooy mu mu jóg gén mooy man mais fii lañ jàngee fii lañ taataanee fii lañ xamee lépp yi ci am solo ba am solo mooy dañoo bëgg changement lañ bëgg changement si dund gi changement si dëkk bi nu muy doxee changement si loi yi fi nekk yëpp ba pay tey député bi nga xam ne moom lañ ko faloon ci département bi kenn gisu ko ñun nag ñaanuñu yàlla nekk loolu lu ñu bëgg mooy bu ñu falee au moins tey ñu man a ñëw fii nekk nekk seen ambassadeur pour xeexal euh, commande coono yi fi ngeen den koy dund ñu yóbbu si ci Assemblée nationale pour jëm ko fi jële te ba beneen sens bi ñam mooy liste bi ko wootee am nañ possibilité am ñetti député kenn du ko tëkkale ak benn loolu nag moo tax sant yàlla baax ak Ndiaye Ndiaye Ndiaye ça va léegi moom bi ngay nga dëkk Kër Mor Samb waaw Kër ci la bokk waaw commune Ngathie la bokk waaw waaw ça va na nga def ña nga fa m de la léegi laay laaj tam si sax ñu ne ma dafa am benn décès bu am ñoom bi ñu ñoom ñëpp waaw ñu ngi waajal waaw moom kay góorgóorlu leen ñëw gàcc rek incha allah dañuy koy doxal démb sax wóor naa la ay yoon jutuma la ah, barki démb xam naa boobu da ngaa nekk papa da ngaa nekk njaago waaw dama nekk njaago baaxum moo ma ko doon wax papa dama ko doon maa ngi nii ah, jëjëf la jàlloo ngi nii ngóor gën jóoba ngi nii sunu ñaari député laa la andee moom man ak moom ay ay baykat lañ mais ren sax amaguñ jiwu waaye mm. dañuy bàyyi ba nga falu incha daal di ñu fay nekkal wax ci baykat yi bu boobaa ñu mën a duggaat soobuwaat mu mbay mi. maa bi maa koy wax kew maa ngi koy wax émission bi ma doon def ak député waa benn Bokk Yaakaar ma ne leen tey lii dafa jaaduwut parce que man maay meeru Mbos bi ñu indee gerte gi damaa dem si si seko bi xool ko ma xool gerte gi gis xool ko xool ni gerte gi kenn mënu see ji benn doom ah. te ba pay ñu jël xaalis bu dul jeex lañ wax 60 milliards lañ wax lañ jël subventionné ak gerte gi kenn mënu ji kew ma seetlu su benn mbir mooy ñañ koy jox dañ koy jox 230 francs ñu dem jaayee ko si marché bi 300 francs nga xam ne koo xam dañ ko jox 300 kilos tey bu ko jaayee 21000 francs la si am mais yàq gu metti noonu mais fan dafa dakk du ko ji kenn sañu ko mais loolu nag buy tax waaye tax ñu ko subventionné lan moo tax ñu ko subventionné député di ko voté. keroog ma ne bëggoon jox jiw hmm? lu mu bon bon dañuy dem ba jaww be wala Guinée ñu bu ñu la joxoon sax baax na. waaw xam nga loolu ñan ñoo ko xam nga ñan ñoo ñan ko war a def. xam nga ñan ñoo ko war xam ñan ñoo ko war a def hmm. xam bi tànn nañ député muy député Mandiaye mu nekk fi dëkk fi xam na li xew ñooñu kay ñoko ko war a muy jàll man nima def ba taxaw ci télévision pour def cri de cœur wax leen ni xew man tay duma xalaat mukk nek ensemble national may gis projet de loi bobu di jall ñukoy jël diko jox opérateur yo xamni dañ ci def lu leen neex ma dëkk mbos ñew diko bayyi muy jall di xol wa mbos duma ko nangu di waxal département duma ko nangu du duñ ko nangu loolu duñ ko nangu donc nak motax bo bo campagne lo wax hmm. ci wara taxaw ah. xamni moo taxaw non loolu mo yëfi gox yow du politique gis nga dama ne euh, yëfi gox la góor nag góor kay ni mëno nek ay nit nga and ak ñom di ñu guddee la bëccëgal la nga am li nga bëgg eh, dem seen waye ala bo gis am na retour bis dina ñëwaat. ki kii nag moom laa woteeloon mais. Uh-huh. Eh, man Macky Sall la. Uh-huh ndax maa ko bëgg sama xol sama doom bu ñu añ suuf dañu xuloo ba ñu pare maa ngi sama bàyyi papa bu ñu añ dañu xuloo ba yeesaay mu mel ndeysaan ndeysaan dañ may jéem a dañoo may cokkaas ko <laughs> waaw yu ma kilifa waaye du tee moom pour wate ay département ay maire yooyu du ci gouvernement ko ah? waaw man laaj moom yi laa wate papa département bi dana leen ko wateel papa papa waaw loolu laa ci man de man man man rakk laa fi yàlla Ismaïla waaw waaw di <laughs> léegi léegi léegi papa damaa amoon question bu ndaw rek question bu ndaw rek. Macky Sall moom du ñaari mandat la ñu waxoon. waaw non Macky léegi laa ci xulóog Arona ma ne ko ñaar la waxoon ma ne ko ñaar yow bu ko bu ko jàllee moom man pare naa si. jeex na. di wax au jour du 31 il faut sortir et massivement. voilà honorable député Mamadou Tidiane Wade mu ngi ñëw boo toogatee ca grand place bi nag lii xam nga ne ma jaay kebe bu ko defee wàcc attanu ko boo yónni da ngay yónni ndaw sawar am kattan loolu moo waral ñoo bokk même génération kii xam na xamante na ñoom ñoo bokk benn ji léegi nag affaire baa ngi ñëwee professeur Diallo

ku kii daal ku ko voteel voté nga changement ndax ñu xam nañ fi lañ dëkk fi lañ man xam ma man ak docteur Ismaïla ñun ñëpp fi tey actuellement ci élection yi ñu jëm benn candidat la ñu am mu jiitu liste departemental muy Baye Guène bu ko woteel moom dana dem assemblée nationale Daba Diouf dana dem Ismaïla Diallo dana dem fu benn nit di dem bu ngeen ñu wotelee ñetti nit danañ dem yaakaar naa loolu nag chance la pour Guinguinéo ngeen jàpp ci bu baax voté la liste yeewi lu wàllu ñun yeewi lañ pur lañ pastef lañ mais ñun ñëpp tey dañoo décider pour jàppale wàllu wàllum suñu candidat Baye Guèye Diop ngeen jàpp ci bu baax jërë ngeen jëf ndaw la. kii kii ku daan jàppale ko mooy jërëjëf am ndox. kii jërëjëf sax wax wax ju bëri ñun xam nañ xam nañ ñun li ñu bëgg ñu lu ñu arrangé. waaw loolu moom jërëjëf sax wax wax ju bëri. loolu kii moom mooy candidat maître Abdoulaye Wade. kii mooy candidat wu Ousmane Sonko. kii mooy candidat wu sëñ Moustapha Sy. kii mooy candidat wu Khalifa Sall. bu ngeen ko wotelee mel ni na topp ngeen ndigalu ñooñu ñëpp. te kooku mooy Baye Guène Diop bu ngeen gis ni moom ak soxna Roqaye Diouf ma daba daba Diouf ñoom ñëpp bokk liste bi ngeen wote liste bi dinañ am ñetti député alors que bu ngeen tànnee bennoo bokk yaakaar nag benn nit la ñuy dem koo xam ne joxoon ngeen ko juróomi at yoo xam ne mosu leen ko dégg ci télé mosu leen ko dégg ci rajo kon nag jàpp leen ci lii ku leen jox xaalis jël leen ko ngeen lekk ko te dëkk déedéet du ma njaay kebe ah, kii mooy wallu ah, waaw wàllu askan wi ah, mu ngi soxna si soxna léegi damaa liggéey si woon. te ah, marché bi neexut. aw ma dara. léegi lii nag moo ko mën a dindi. ngeen jàppale ñu rek. te incha allah daañu leen jàpp. mais mais euh, yaay boy yaay booy dañu bëgg dañu bëgg ñu xam nga li tubaab bi wax ñu sincère ak yéen. mu nekk loo xam ne suñu akulaayu taalaa la. jamono dafa naqari te Macky moo ko naqari jamono neexul ci kenn ñun ay doom lañ ci kër lañ jóge bàyyi fa yaay bàyyi fa bàyyi. bàyyi fa ay rak jamono jeex na tàkk nakay tey ndelay wa ah Gilles dañ leen andil di leen won suñu candidat bi waaw mooy candidat bi moo génn ñetti candidat naa ni dèjà de kenn ko jën benn candidat te mooy te li ñu mooy mooy yitteel ñëpp dëkk bi metti na li fi dox bëriwut dañu war am ñoo xam ne nag seen rôle mooy xeex loolu pour mu jóge fa te incha allah bu leen jàppalee li si wàllu wàllu bi ñu am fa ñett député incha allah li ñu bëgg yëpp dina ko am kon alhamdulilah bi amin jërëjëf nuyu nuyu Ismaïla docteur honorable Ismaïla

ñii samay cousin lan mais kii sama kilifa la waaw jeex na jeex na waaw non si moom xam ngeen seen daj sax na ngeen dafa def waa li moom na ngeen dafa def soo nga xam ne Malick Sow Malick Sow non xam naa ko xam naa ko ñoo bokk waaw ok Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal kenn mënu ko waaye mu ko la moo ko gënal waaw li nga xam ne wooteel ngeen Ismaïla Diallo su ngeen ko jëlee wooteel ngeen dëkk wooteel ngeen Modou Diop Diop Saxañ Ah, ok. Un tournoi très décisif. barikal alhamdulilah ñu ngi jégalu ci dérangement bi alhamdulilah ñëwoon rek seet si leen euh, waaw papa ñoo leen si woon tey lii lu ñuy wax intercoalition yeewi ak wàllu maanaam Ousmane Sonko ak Abdoulaye Wade pour gàttal ñoom ñoo bëgg a boole seen doole ndax si ak jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi léegi nag ñun fii département gee ngi new yàlla dogal na am nañ ñett ñam ngeen seen ñetti doom yoo xam ne dañu leen investir fii ci département bi mooy maire Mbos bi Baye Diop mooy Diop ah man mii seen doom docteur Ismaïla Diallo ak suñu bajen Rokhaya Daba Diouf ñun ñett ñëpp nag bu ngeen buggee ñu dem assemblée nationale représenté fa dignement département bi da ngeen ñuy bàyyi xel woteel ñu bii su ngeen ñu wotelee bii war na ne woteel ngeen ñetti député te soobee yàlla su suñu aqulaayi taala ñun xam nañ jafe-jafe yi ndax ci kër yi lañ jóge ay doomu béykat lañ ay doomu càmm lañ donc kon xam nañ fuy métti te soobee yàlla loolu dañ ca taxaw bu baax wax ko ba ñu bàyyi département Guinguinéo ngeen defal ñu si ñaan ngeen jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax papa jigéen yaa ngi ne xas vraiment on ne peut pas supporter voilà voilà merci beaucoup merci merci ñu ne 6 millions lañ ko séddale pour commune Diaguiné waaw xam nga loo xam ne xaalis bu ñu leen jox jël leen lekk jël leen naan seen xaalis la tëpp leen wala jël leen papa papa yi may ñoo bokk benn papa dañoo nekkoon di ñëw di di waxtaan ak nit ñi rek wala dëkk bi moom li fi nekk moom yaakaar naa il faut ko te jàpp nañu bu ñu voté rek dinañ tax sañ ñoo def leneen nekkal leen fa nekkal leen fa dignement nag incha donc bulletin bi moo nekk noonu amiin amiin amiin ah non incha allah si loolu lañ nekk dama ne ko si loolu lañ nekk incha allah si loolu lañ nekk incha allah. naka tàng ba mbaa ba tàng baax baax bu baax a baax tàng na bu baax dañoo ñëwoon tey gee ngi neew wàcc si marché bi dem si nit ñi waxtaan ak ñoom sensibiliser li fi nekk daal Euh, moom comme yéen moom sotti seeg def fi la xanaa euh, ah, dañu jox rek bu ngeen demee ngeen yéegi xam nga sens bi ñu am aussi mën nañu am ñetti député donc loolu si sens dañu ko tëkkaleeg benn député donc mbir maa ngi noonu yàlla baax na ñun sañ ñoo def lu bu leen ñu fale ñu nekk si ñeen waaw ñu ngeen ñu yónne rek sañ ñu leneen waaw sant nañ baax a baax amin amin amin amin amin amin waaw waaw waaw sama nijaay la waaw waaw coalition mi ngi noonu. l'intercoalition Yewwi Wallu gi noonu. Yewwi Wallu gi noonu ñoom ñoo fi jaar ñoom ñu nuyu di leen sargal département bi